salaamaaleykum monsieur le président maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi tudd Fatimata Zahra Wagué nekk doom Tamba pur et dur je suis très fier de quarante cinq degrés monsieur le président damay wax ci mbirum entrepreneuriat mu nekk loo xamante ni jeunesse bi dañoo dynamique bëgg liggéey mais monsieur le président DER dafa nekk pour tout le monde fii nañu ko décentraliser yóbbu ko dans les zones les plus reculées de Tamba pour ñu mun a am accès ci financement waaye aussi financement waruñu ko def mbirum pàcc pàcc loo mooy da ngay nekk Benno Bokk Yaakaar pour am financement boo nekkee activiste wala bo bokkul ak yéen xalaat ñu daal di lay privé financement yi du dëgg du yoon parce que loolu lay dund actuellement et sama yu morom loolu la ñuy dund beneen bi wax ko ci accès Jakarta Jakarta du métier jeune Tamba mérité nañ plus que métier que Jakarta parce que saa yoo soxlee gagné Tamba ñu jox la ko ba mu mat kon jeunesse bi jox leen xëy bu méngoo ak lu ñu bëgg waaye nag nañu am école de métier parce que jàng aussi am na ñoo xamante ni duñu mun a jeexal seen jàng bu ko defee ñu insérer leen ci école de formation yi ñi leen di jàngal métier bu ko defee bu ñu paree ñu mun leen yóbbu ci euh, école ñu ñu mun leen yóbbu foo xamante ni da leen mun a jàppale seen yaay jàppale seen papa kon monsieur le président de la république gëstul jeunesse Tambacounda ndax sonn nañu ndax jaaxle nañu amatuñu benn confiance jëmale ci régime bi fi nekk wala jëme ci nguur bi fi nekk di la wax ni ku la wax ni financement mu ngi koy andi Tambacounda ñun gisuñu ko ñu ngi koy jël di ko dugal seen biir poche di la wax ni di la wax ni bëgg nañ chaque deux deux mois wala trois mois nga ñëw xam nga lu tax Tamba mi ngi rafet ñu ngi koy peinture parce que yaa ngi ñëw di la jaajëf jërëjëf Fatima jërëjëf alors Fatima Zara Wagué fière de Tambacoundoise c'est bien peut être fière de ce de ce de sa localité donc loolu euh, dañ ciy bëgg si nit ku am racine fi mu dëkk alors je suis très étonné nga ne financement yi ñuy joxe c'est partisan j'espère que am nga ay cas yoo xam ne xam nga ko yu war a tax nga taxaw fii ne financement yu DER dañ koy joxe sur la base partisane dana ma bett trop parce que du DER du doxe noonu du instruction yooyu lañ leen jox et tout à l'heure maa ngi jógee quartier Liberté où on montré des femmes qui ont eu des financements am na si ku am soixante seize millions man xamuma ko mosuma ko gis benn jigéen bu am war a am usine de glace fii si Tamba am na ku am télévision boo xam ne journaliste la yay a financement de trente trois millions am na beneen jeune buy def ay ferme agricole il a un financement je pense de de dix sept ou seize millions et am na même ku am financement huit cent mille alors je crois que boo leen di wax quand même da ngeen di teg bu fekkee am nga kayu yu avéré il faut les dénoncer ça y a pas de problème ñu corriger ko parce que kenn waxul te boo demee si parti APR bi nga yow wala Benno ñi nga xam ne ñoo nekk ci majorité Nos jeunes disent la même chose. Gisuñu financement, amuñu financement. Les jeunes de parti, tous les jours, nous attaquer ñu yor tous les jours, ils attaquent les responsables yu yor structure yooyu pour wax duñ jàppale politique fale faale wuñu bu ñu leen bindee wala wane ne ci parti bi sax lañ bokk duñu recevoir et cetera et cetera donc il faut pas vraiment dire des choses pareilles maintenant maintenant s'il vous plaît il est clair que financement yi doyul mais à Tamba d'ailleurs dinaa bàyyi ki yor mu wax la situation exacte ñan la ñu financer combien ak fan et puis xam aussi le gap parce que li ñuy demandé ak possibilité ñun yi ñu am du mën a nekk benn mais vraiment muy DER muy FONGIP donc l'administrateur est là elle pourra aussi dire comment ils font le choix de garantie des projets. muy 3 FPT ce sont des instruments à la disposition. Omar wàccal ma ci waay parce que man jëluma ko depuis ce matin. loolu la DER pourra de façon concrète sur le cas de Tambacounda et en attendant que ñoom ñu tontu moi je vais m'absenter pour un appel urgent euh, et je vais revenir. jërëjëf jërëjëf monsieur le président. mbooloo mi dañuy bàyyi monsieur le président mu retiré wu pour quelques minutes waaye dañuy continuer jox euh, parole bi ki nga xam ni moom moo di délégué général à l' entrepreneuriat rapide bu fekkee mi ngi ci salle bi madame Abi madame Abi Seye mu ngi ci salle bi mu ngi si ginnaaw micro maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Euh, di dellu siwaat ci yenn question yi fii jot jaar euh, notamment benn question bu Fatoumata Zahra wage pose ci wàllu financement yi may rappeler rek damay profiter rek fàttali ni que tey jii DER mi ngi ci pôle emploi yëpp pôle emploi yi mooy li président teg s'il vous ñu déglu ko s'il mettre en place ci wàllum programme xëyu ndaw ñi tey jii ci quarante 46 départements yi DER est représenté dans les pôles emploi donc tey jii képp ku soxla financement ci pôle emploi yi boo demee ñu mun laa tontu may profiter di wax ni que d'ailleurs ci fin d'année bi am na benn intensification boo xamante ni président mooñu ñu laaj ñu jàppale si ndaw yi ci valeur u un milliard boo xamante ni tey jii ci Sénégal bi yépp ñu ngi jàppale ndaw yi inscrire ci pôle emploi yi depuis biñ ko créé jàppale leen yokkaat li ñu doon def suñu loxo instant bi may waxee ak yéen nii tey jii euh, loolu aussi xam naa dina concerné waale Rougui jàlloo mi ci Bakel mi doon wax tamit wàllum financement yi ak fuñ ñuy fekk instant bi ñuy wax ni ci Bakel am na tey jii plus de tey jii ci semaine bi ñu nekk nii rek plus de quatre-vingt-un crédit boo xamante ni ndaw yi jot nañ ko jël nañ ko ci valeur ñu ngi ci toll ci 34 millions ci semaine bi ma leen di wax nii bi ñu nekk nii ci région Tamba bi ci sept derniers jours yi ñu ngi toll ci plus de 68 millions yoo xamante ni 161 crédits octroyé nañ ko ay ndaw ay ndawu Tamba yoo xamante ni dañu dem bindu ji demander ci autonomisation Kédougou tamit toxe nañ fi fu lu toll ci 74 crédits damay dellu si waat di fàttali ni que enrôlement wu DER dafa am plateforme boo xamante ni kii di gouverneur u région kii di préfet département ba ñu nekk ci pôle emploi bi dañuy gis ñiy bindu dañuy gis fu ñu jóge lu ñu laaj ah, ah. d'accord ah donc dama doon wax ni rek ak plateforme bi ñu mettre en place kii di gouverneur kii di préfet wala kii di di ki ñu nekkal ci pôle emploi yi ku ci nekk di nga gis koo xamante ni ki bindu ci pôle emploi yi ak ñaat lan la laaj ak ban domaine la ko laaj te loolu li ñu ci yitteel mooy bu weesoo ñëpp gis ñan ñoo demande ay ay doomu réew mi rek ñooy laaj nag ay sénégalais yu jàmbaar ñooy laaj ah daf ñuy permettre tamit des fois di nga gis li président doon wax sànq bi muy dem ah nga gis ku demande financement DER wala nga demander financement fonds tab pereegoo fayagoo nga ñëw di demander DER te yooyu préfet yi dañu ciy alerter naan ñu bu leen tegale financement yi wala yooyu donc loolu lu am solo la tey ji di leen wax ni lu transparent la képp ku dem ci pôle emploi bi tey jii da ngay bindu ñi autonomisation ñiy joxe dañ koy joxe ci téléphone ngay jot ñi def ñi demander ba montant bu yegul un million wala mu yeg yegg un million donc lu vrai la lu lu lu existe la désenclavement bi tamit ah ñun dañu xool dara ñu ne tey jii naka la ñuy def ba ñu nekkul ci pôle emploi yi naka lañuy def ba ñu jot ci ci DER ñu ne dañuy def li ñuy wooyee ay guichet mobile waaye nag guichet mobile mënuñu di ko def tout le temps dañuy tànn ci at bi ñeenti yoon wala juróomi yoon yoo xamante ni dinañ dugg ci gox-goxaan yi tey jii démb rek am na sama ay équipe yoo xamante ni ña nga woon Salemata Salémata am na pôle emploi ña ngay bindu ña ngay ngay jot seen xaalis tamit mais ci biir biir am na ñoo xamante ni xamuñu ba tey luy deer te ñooñu laaj na ñu may leen xel laaj na ñu may leen bët te ñooñu tamit ñu ngi leen di xool a ah, damay dellu si question euh, Rougui Diallo question bi mu doon posé sànq di laaj tamit ndax financement yegg na ak yeggul ak ñiy def élevage foog naa ni tey jii li ñu fi indi tey jii ci journée de l'élevage bi rek gis nañ ni am na ay financement yoo xamante ni jàppale nañ ci ndaw ñi te boo xoolee ci Bakel puisque de Bakel la doon wax ñu ngi toll tey jii ci bare na barewul ñu ngi toll ci trois cent soixante six millions yoo xamante ni entre nano crédit bi autonomisation bi jàppale yi ñuy jàppale comme fabrique de glace yi wala yooyu wala mini laiterie yi wala hôtel Villa la Vallée bi nga xamante ni jàppale na toll na ci trois cent soixante six millions di fàttali tamit ni DER toll nii ñu ngi quatre cent cinquante mille demandes yoo xam ni kenn satisfaire ko quatre cent cinquante mille demandes loolu toll ñu ngi kay xayma ci deux cent quarante sept milliards mooy wane lan mooy wane ni DER tamit du mun a jàppale ñëpp du mun a jàppale ñëpp taxul ni que képp ku ko yellool tamit duñ la may xel duñ la may bët may may ñaax rek jeunes yi nañuy dem bindu ji ci pôle emploie yi parce que tey jii ñi ngi financé ñi ngi jàppale wax dëgg yàlla donc bu ngeen demul bindu bu ngeen jéemul xool tamit dafay metti torop tamit pour ni bokk naa wala bokk ma mais ñi ñi bindu tamit mënuñoo satisfaire demande bi yëpp malheureusement ressources yooyu amuñu fi mais buleen leen tàyyi ñun tamit na ngeen xam ni que fépp fu ñu kilifa gi wax comme ni mu ko waxee nii na ngeen yokk seen loxo ci ci ci région orientale bi laay wax sax muy Tamba ak di Kédougou na ngeen yokk seen loxo ci discrimination positive bi nañ ci gën a yokk suñu loxo may joxe tamit benn information fi ñu toll nii ci autonomisation c'est bien que président ñëwaat dégg loolu parce que ci autonomisation mooy les montants yi nga xamante ni dépassé wul un million te ñu bindu ci pôle emploi yi on a satisfait toutes les demandes toutes les demandes ñi bindu ci pôle emploi yi depuis bi ñu tegee pôle emploi yi DER ba muy dugg ci pôle bi wala dugg sew foon lépp la ñu boole te ñi demandé woon ñëpp financé nañ leen tey jii dama koy répété waat ma ne ñi demandé montant bu yegg ba un million li ñuy woowee autonomisation ci région Tambacounda ak Kédougou ñi demandé ñëpp jox nañ leen may wax sama baat si kaw may wax nag ñëpp lañu ñu satisfaire déglul bu baax un million ñi demandé ba un million satisfaire nañ leen chiffre bon oh, xam nga nag am na yenn yenn voilà très bien nga ah waaw d'accord très bien voilà donc waa léegi très bien merci beaucoup maa ngi leen di remercier di wax rek ni que ñi nga xamante ni tamit ñi nga xamante ni demandé nañu li nga xam ni weesu na un million am na ay <laughs> am na ay financement yoo xamante ni fii ak janvier bi dina génn am na yoo xam ne joxe nañ ko fii tey jii ci semaine bi ñu fi nekk am na yoo xamante ne dañu nekk en en instruction na ngeen xam tamit ni financement du da ngay bindu rek ñu génne jox la ndax équipe yi dañuy ñëw ci terrain bi dañuy ñëw xool li ngeen laaj ñu xool fa ngeen koy defee ak la ngeen ca soxla ñun ñu delluwaat liggéeyaat liggéey ak autorité territoriale yi fi nekk nag mu transparent loolu mooy waral tamit financement yenn financement yu yu yu am solo yi du gaaw a génn ndax dafa laaj ñu koy xool di fàttali tamit ni DER xaalisam xaalis bi muy financé xaalisu état du Sénégal la ak ay xaalisu bailleur ay bailleur ñooy de indaale tamit jàppale état du Sénégal ci projet yi nga xamante ni tamit namm nañ ci gis nañ ci ni day créer emploi te loolu yëpp nag ah ñun tamit dañuy rendre compte dañuy rendre compte kilifa gi dañuy rendre compte bailleurs yi dañuy rendre compte pour que ñu mun ñoo dolli xaalis parce que DER xaalis bi ñuy financer remboursement bi lañ ci yaakaar ak li nga xamante ni état wi ngi koy dugal ak li nga xamante ni bailleur ñu ngi koy dugal merci beaucoup. merci beaucoup madame Abi merci beaucoup. Euh, monsieur président euh, si vous permettez dañuy continuer ak euh, liste intervenant yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk war a jël kàddu bi euh, ki nga xam ni moom la ñuy jox parole bi mu ngi tudd Cheikh Goumbala Cheikh Goumbala mu ngi ci sal bi.